ba xale yi nga xamante ne dañuy jàng si lycée bi ak collège bi si la ñuy tàmbali mais jamono mën na dem ba école primaire yëpp ñuy euh, ñu bokk si mooy bu ñu waree jàngi ngoon léegi du ñu ñibbi walla di taxawaalu bu ñu génnee dañ leen di andil pour ñu añ si école bi añ boobu nag bu mënee nekk ay partenaires ñoo si jàpp ñun ñu nekk première commune boo xamante ne bi euh, andi nañ ko ci suñu commune comme ni ko président ñaan aussi yeneen commune yëpp mën nañ def la même chose conseil municipal tabax na cuisine boo xamante ne bii andi équipement yi def na si lu war a mat fukki millions yoo xamante ne yi pour que li taxaw lay nekk léegi nag ñi lay jàppale mën a ñëw euh, mu continuer. moo wax ne aussi lii gën a neex mooy xale yi ñi nga xam ne ñooy seeni waajur ku si nekk wax na ne euh, parce que booy lekk it bu ñu la andilee añ ngay lekk da nga joxe ñaar fukki dërëm boo xamante ni mooy sa participation donc xale yi dañuy participer parce que seen parents ñoo leen kay jox euh, li si des rek mooy. ah taxawal nañu euh, cantine bi euh, cantine scolaire yi cuisine bi taxaw na waaye nag il faut que ñu def tout pour que mu wéy pour que mu continuer parce que ñi ñuy jàppale am na foo xam bu ñu fa yeggee mu di dañuy taxaw. tey dañu ñëw def euh, ab doxantu pour mën a xool tuuti waañ bu mag lañ ko mën a tuddee bu nga xam ni day permettre ñu mën a jox ndongo yi ci département bi yëpp ay añ yu mucc ayib. ay añ yu nga xam ni euh, liñ ko defaree li ci ëpp mi ngi jóge ci département bi mi ngi jóge ci agriculteurs yi mi ngi jóge aussi si femmes yi nga xam ñu ngi yëngu ci transformation ñuy liggéey ak ñoom pour mën tey euh, tabax benn ndëgërlaay bu nga xam ne pour jàngu élèves yi gën a ñoŋ la donc projet boobu mi ngi tudd Amopar donc mom lañuy doxal depuis 2016 ak suñu partenaire yu melni ni yu melni ni euh ak wa AFD ño nek suñu ginnaw diñu jappalé ba ñu a lu melni tay ñi ngi euh, du tek ay waxtaan ak collectivité yeneen collectivité territoriale yu fi nek manam mairie parce que comme niñ ko xamé mairie yi ñoom ñoo yor école primaire yi. Euh, conseil départemental moo yor lycée yi ak CM yi euh, tey mënoon nañ tàmbale bañ a yaatal yem ci lu ñu moom mais dañu ne tey dañu nekk bëgg tëddaa kii tëddee tëraay ndey ji seex dañuy bëgg euh, boole mairie yi tey si li ñuy def boole leen ci naka mooy dem ak dem si ñoom waxtaan ak ñoom si lu jëm si wàllu projet bi expliquer leen portée bu mu am ak solo bu mu am si ñàngu xale yi te daanaka mun nañ ne lu ñu dégg la te lu ñu nangu la donc ñi ngi ci waxtaan boobu amna ay école primaire déjà yu ci bokk euh, ci ci yenn commune yi ouest ñi ngi jël ñaari école euh, pri kii primaire par exemple donc ak yenen ak yenen tay projet bi démarré na ak sept collectivités territoriales yu nga xamni ñi ngi servir ci seen i biir gox ay euh, ay agne ci seen ci seen école donc projet bi euh, ci tàmbale lañ toll ci ndorteel mais bis buñ ko doxalee fii ak at ñaari at dañu nekk ci esprit bu nga xam ni pour yaatal la ba ndongo daara nekk ci département bi yëpp mun ci bénéficier wu.